Atchoum ah les merengue avant tout match bi seere woon na trop metti woon na ci yéen ba à quatre vingt vingtième minute ah ngeen débloqué situation bi waaw Osasuna était dangereux devant vous vraiment mu ngi doon jéem a jaayante ak yéen ci biir jeu bi mën naa ni Real de Madrid moo dominé woon largement mais c'était un peu difficile euh, pour mu mën a euh, finir ay occasion waaw. foofu nag Karim Benzema xaw naa PSG tuuti absence am et tout mais tamit équipe bu mag ànd ak coach bu mag vraiment mën nga koo contrer waaye it bu yeewoo rek yeewu na quoi gis nañu tey Real de Madrid ci début bi c'était difficile pour moom pour mu finir ay action dama ko Osasuna moom it jéem ko woon bàyyi dara nag yamaatuñu foofu ci staatam fa la nekkoon supporters yi gérer match bi carrément. Valverde délivré Real de Madrid à la soixante-dix-neuvième minute jëmm la joo xam ne nii xawoon ay jamono waaw waaye temps yi muy commencé ñëwaat nànk-nànk ma leen xaar ci commentaire yi kan ngeen di jox homme du match balaa ñëw continuer gis nañ ne nag Valverde délivré na Real de Madrid yee leen wan leen ne actuellement forcément tey ñoom dañoo war a gagné match boobee contre Osasuna ngir war a mën a gën a jege FC Barcelone mi nga xam ne actuellement ba ba Real Doré rawee na leen 5 points ak match de retard bi nga xam ne suba ñoom lañ koy football waaye gis nañ ne dama seetlu ci biir match bi. benn gone buñ naan Alvaro mais gars yi gis ngeen pat gauche booy boobee ak détermination bi nga xam ne booy mu ngi koy indi ci terrain bi ah benn pipit mu ngi yeewu ci club biñ naan Real de Madrid il n'a que 18 ans doon uruguayen tey dafa dugg carrément def la break def ñaari passes décisives benn bi arbitre bi bañ ko nag dem VAR hors bi Valverde moom mooy yàqoon occasion bi nag ci moom la dal hors bi ñëw. mais doon na jeune boo xam ne nii ah tey lim jot a wone xaw na dal xel boo ko Ancelotti gënee may confiance ah war na mën a jàppale Real de Madrid ci lu bëri ci lan ñuy mën di tourner seen équipe bi nag Real compétition yi ñuy football dafa nar a bëri te bu ñu dul tourner équipe bi benn onze boobee rek nar na leen a kon nag Ancelotti côté boobu mu ngi ciy bàyyi xel coach bu mag la nag tey moom révélé na booy bu bees bu ñu naan Alvaro malgré jamono yële duggoon na remplacer Eden mais tey jii dafa wane boppam carrément ci deux di décisives yi nga xam ne def na ko benn bi arbitre bañ ko Vinicius dugal ko nag VAR hors-jeu beneen bi nag Asensio macha allah kooku moom vraiment mu gisee mu retrouver waat niveau rek non damay contentement nag bugguma ay talent di gâché quoi talent yi di yàqu nag football dafa war a neex ñi am talent di wane seen bopp te jëmm joojee ci la bokk. félicitations les merengue door nañ 2 buts à 0 ki ñu naan Osasuna mi nga xam ne tey jéemoon naa jaayanteeg Real mu xawoon met moom tuuti waaye finalement équipe bu mag équipe bu mag la war na ne équipe bu mag gagné ko baax Barça rawee na ko 5 points ñu xaar suba nu muy demee les Catalans seen